poussière ci jaww ji daanaka ñetti fan a ngi nii muy sonal nit ñi mu nekk ci njaay mi. boo xasee tàmm jaayu mbedd mi rek mënoo toog sa kër ndax wax dëgg yàlla boo jaay si doo am loo def sa poset ci ngay génne sa teraanga daal il faut dangay xëy si moom. par des fois poussière bi day ñëw mais kon ni ma la ko waxee rek sant yàlla sant yàlla bu baax sax par des fois bi day ñëw bu bari sax mais dama koy dundee noonu rek te xam ne du ma ne bulet yàgg na fee am. wala ci yaram wi. vraiment asma daf may sonal si bakkan bi. fa métti torop tey sax man laa doog di mën a wax fan yii yëpp damaa soj. bi les poussières di fësal li rek ñoo ngi dugg lii di seddaay lenn rek nag moo fi sës moo di wutab masque. waaw heure bii kay depuis démb moom soo mag sax daf maa topp jëndal masque jëndal masque balaa ñuy demaat hôpital nga may sonaat ay garab ma jënd masque bi ne di ko sol ko. xanaa fagaru ci rek di jël ay moo la ci musar daal. bile jumtukaay buy aar nit ñi ci poussière yi fan yi nag dafa daal di yokk ndaxte ñi koy laaj laajtee bari. démb fukki dërëm laa ko jëndee mais tey cent francs laa ko jëndee jaaykatu mas yi tey dañoo yokk parce que ñoom bu ñu sañoon ngelaw bi du jeex. paquet bi ba 5000 wàcc ba 2500 mais instant moom prix bi taxawul benn waaw ah, mën nga ko jënd jaay ko ay 50 wala keneen ñëw sax nga jaay ko juróom wala 100 francs prix bi taxul daal quoi. njëndu masque nag dina gën a bari ci fan yu ñu jëm ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum jaww ji poussière bi dina woy ay fan balaa yëfi nag di dellu ca na mu meloon lenn rek moo fi sës sol masque.